je une personne qui marche à visage découvert dans ce pays je ne moi bëgguma sax di ko wax waa parce que en fait c'est ce débat-là que vous entretenez sur les plateaux et qui n'a pas de sens moom laay wax il faut des débats de haut pour tirer le Sénégal vers le haut mais pas du désigner naa ñu fi ngeen bokk wala dara man bokk na man man ndaw la ci li may def parce que je sais que je suis un jeune universitaire et c'est ma grande université bu may jàngale Europe bi ma nekkoon di jàngale samay diplôme sénégalais laa fa yóbbu di jàngale ce n'est pas seulement Ousmane Sonko qui me consulte par exemple beaucoup d'hommes politiques dans ce pays me consultent ma xamal la ko j'ai pas besoin aussi d'être conseiller du président de la République xam naa lool état nag comme disait Vedel mun naa bañ a nekk ci biir mais xam naa ko lool parce que jàngale naa ko jàng naa ko te aussi xam naa li ci ne te aussi je parle en toute responsabilité xam nañ ma ci réew mi fii musuma wax gas musuma wax bu déplacé musuma bañ a wax xam-xam aussi je vous le conseille dañu nekk ci état droit ma yokk ci démocratie muy deux titres de respectabilité yoo xamante ni Sénégal looloo tax ñu tuddee woon ko l'iceberg de la démocratie en Afrique xam nga am na loo xam ni boo ko jëlee ci état nga teg ko bëgg ko tënk rek mën naa ne mën naa la delloo wax ji ne la yow ci benn boor rek ngay wax aussi mais du noonu pourtant tout à l'heure bi may wax dama ni sa analyse am na lu ci bëri loo xam dama ko rafetlu c'est parce que en réalité booy. dans mon parti euh, non. non moom moom man dama bëgg nga déglu ma rek. parce que j'ai euh, souffert non parce que pas interpellé man j'ai cité au moins quelqu'un déglu ko. waaw je je m'excuse alors. c'est ça en fait sa à dire Euh, soo may wax ni ma man dama war a bokk fenn au nom de quoi bëgguma bokk fenn j'ai pas envie de militer dans un parti politique beneen bi ñuy wax mooy ce que le parti Pastef a fait aucun parti dans ce pays ne l'a fait moom rek moo fi am une haute autorité de régulation d'un parti politique demal nga xool dans les grandes démocraties chez les républicains en France madame Anne Levade moo ko jiite woon bi France bi COPE ak Fillon amee problème la haute autorité moo ko réglé aujourd'hui Anne Anne Levade professeur de droit public elle est à la haute autorité de moralisation de la vie publique boo demee France Guy Carcassonne à sa mort ñëpp ko félicité ñëpp a ko rendre hommage gauche droite il faut ngeen mun a taxawee noonu mais mënu leen yor nguur gi di def des inconvenances à l'état de droit et des sélections des illégalités lan ngay woowee inconvenance à l'état de droit merci xam nga mooy lan mooy yore nguur ñu fal la ci nga defe ni yaa ko moom patrimonialiser ko yow ak sa partie ak sa coalition di ci dóor nit ñi ba pare di ci noot nit ñi loolu xew Sénégal may mun ñaata nit ñoo woote pour ñu rey Ousmane Sonko dans ce pays on a un parquet Amath le parquet est adossé à l'exécutif dans notre pays le parquet dañu koy jox des instructions à caractère individuel et général man bokk naa ak ay lël UMS UMS bind wax ne il faut que même yenn instructions yi ñu mën ko bàyyi barki dem madame Mimi Touré wax na lu am solo mi ngi wax naan man am na instruction yoo xam ne musuma ko joxe y a des gardes des sceaux yoo xamante ni peut-être duñ ci dugg mais loi bi tëddee noonu donte mi ngi fi rek muy mën na le le système c'est ça c'est un problème de système judiciaire beneen bi ci topp mooy ñaata yoon la ñu ñëw ki ngay wax nii parti PASTEF ma jox leen exemple mais monsieur noonu nous sommes des républicains des démocrates des patriotes tout ce que l'on veut mais c'est le président de la république benn waay ñëw en période de campagne électorale sàcc liste opposition daw ak moom président boobu jël waa ji di ko féliciter yéen ñëpp vous ne l'avez pas condamné cet acte-là déggoo mu félicité kon da ko recevoir. non xam nga mais recevoir mais mais kooku kay c'est les honneurs c'est c'est être brandi en triomphe. may mun a mais bu ñu la recevoir boo defee loolu ñu recevoir la mais ba brandi nañ la en ma jox la beneen ay nit yoo xam ni saaga rek la ñuy def yéen journalistes yi ngeen am problème toog ak président de la république ba muy wax day nommé premier ministre boobu ba léegi daf ko différé mu dem toog ak ñooñu à l'étranger jox leen ah am mi ngi noonu di yow soxla nga toog président. ay saagakat mu toog déedéet <laughs> jox leen jox leen possibilité ñuy wax ak moom kenn waxul dara mais beneen bi gën a bees mën naa ko jox parce que inconvenance yi dama ci dugg ma jox la ñaata dossier yoo xamante ni moo concerné l'opposition dans l'affaire Djibril Ngom boobu mais yooyu askan wi apporte plainte fan la mujj devant le parquet dans le nord Pastef rey nañu militantam fii Mariama Sagna fan la mujj taal nañu parti euh, siège am fii fan la mujj Guy Marius Sagna mii ngay wax di combien de plainte la def xam nga moom laay wax ne inconvenance yooyu dafa am de la sélection des illégalités gis nga man je vis dans ce pays nit jaraluma may wax ko sama bakkan monsieur Ndoye il faut parce que yéen xamuleen nit ñi c'est ça votre problème il faut apprendre à connaître certains Sénégalais gis nga lu ñuy wax ni ça dépasse les hommes parce que les hommes passent les institutions demeurent vous pensez que ni ñun am nañu jot pour wax ni wéy Macky dañ ko contre wala dañu nekk ci ay chapelle c'est mal nous connaître l'autre chose mooy bu ma wàccee ci état de droit inconvenance démocratique mooy lan loo xam ne da ko bokk ak ay nit mais benn bokk yaakaar seen benn ak ñaata activité la ñuy def kenn du ko kenn du ko kenn du ko kenn du ko interdire bërki démb gis nga le ministre de la jeunesse def rassemblement ak des jeunes fii côté cité kër góor gi taxaw kenn gazé wu ko kenn góor defu ko dara ay jeunes taxaw ci wetam ne dañuy dem taal kër Ousmane Sonko kenn ñaawlu ko waaye mais bu ñu nekkee si boobu dëkk yéen beneen bi ci topp mais ñu ngi wax ni fii nii dañuy ibbi ay informations judiciaires diw li ñuy wax et mais il y a un syndicaliste Dambou mu ne dañ ma bëggoon a rey ci corniche bi ñuy bi bëgg jaarloo Ousmane Sonko amul information judiciaire amul enquête amul dara pour le moment cela fii que man mii sax ça pourrait m'arriver su ma jógee fii di dem l'autre chose naa ma dellu si si li nga doon wax maanaam danga jàpp ni Sénégal daf fi am loo xamante ni daf fi bees nee naa la la violence dafa mus am dans ce pays mais dafa changé il faut ñu nangu ko ma ñëw ci loolu il faut ngeen nangul ni Ousmane Sonko c'est un phénomène muy lu wóor parce que da nga ko wax am loo ko xara benn maturité politique amu ko mais man jaaxal na ma yéen nit ko amul maturité politique ba pare yéen ci moom ngeen di xëy moom ngeen di gont fàtte ngeen emploi fàtte ngeen économie. c'est par fàtte ngeen finance par rapport à fàtte ngeen droits sociaux. non il faut relativiser yéen fàtte ngeen problème mu sénégalais yépp vous sortez tout l'armada qu'on a braqué ko ci benn nit ji ngeen ko viol jiñ nañ ko lu ne. attention jiñ nañ ko lu ne. c'est-à-dire ça je ne ça je ne te permettrai pas man dama la déglu bàyyi ma ma non ko quand même. c'est li nga wax yëpp. man dama laa déglu li nga li nga wax lépp dama souffrir. mais c'est long quand même waaw li nga wax lépp c'est ça. moo ma la démocratie du affaire de gentleman. gis li ma lay wax naan la j'apprécie ça se passe comme ça. dans les tribunaux américains quand le procureur bu waxee sax ni diw sax dañ ko war a sax condamné à mort aux états su beneen avocat bi jógee sax danaan merci monsieur le procureur j'apprécie noonu laa la ko waxee bàyyi ma rek ba continuer li ma la bëgg a wax foofu mooy il faut ñu xam ni ce pays nous appartient tous Ousmane Sonko doomu Sénégal la am yàlla lu mu ko may muy un phénomène politique xam nga bu ñu demee science politique sax dañuy wax objet politique identifié moom dafa dépassé loolu il faut ñu nangu loolu mu nekk ku méngoog jamonoom donte am na ay défauts comme homme politique yépp ah, donte am na ay limites comme homme politique yëpp mais nañu ko nangul dayoom gis nga nit ku nekk bu ñu la woowee tribunal ni nga tol ngay wuyoo ah parce que fii Sénégal la boo ko wanewul ñu ni kii ana mbokkam. mais Ngouda yeneen yeneen. non may mun a man li may wax dafa am solo. parce que dafa am lu mu wax parce que dafa ne Ousmane Sonko. bu ñu ko woowee bàyyil bàyyil bàyyil yan bàyyil ma ñëw bàyyil ma ñëw li may wax am na solo non vous me laissez terminer aussi. parce que man sànq ba tey dama toog di leen déglu rek. laissez-moi terminer après ngeen wax ma déglu leen. da ne dafa war a jóg wuyu ji ma ne la nit ku ne na nga toll ngay wuyoo gis nga fii au Sénégal même pour l'élection maa la ko expliquer boo ma daggee du ma la ma a expliquer Amadou s'il de toute façon sama étudiant sax duñu ma dagg mais vous n'êtes pas mon étudiant on est on est des vis a vis on est des vis à ah? a wax mooy mooy temps man man chronométré li ngay wax man enseignant laa jàngalekat laa. continuer continuer bi ngay wax damaa jël sama montre xool li ngay wax. continuer c'est bien continuer. bon technique yoo xamante ne la man mënumaa dérailler si li may wax. on est dans la com aussi. <laughs> leen a ñëw tey. kooku nga ne dañu koy woo rek mu dem wuyu au Sénégal les gens n'élisent même pas les solitaires. ma jox la ko comme consultance comme da wax parce fii. dafa am suñuy substrat sociologique ak nu ñu taxawee yow tey boo amoon sa frère tey tey tey mu am problème justice ñu woo ko mm-hmm. di nga ci di nga dem di nga dem mm-hmm. même boo si wax lu was lu ak di nga dem taxaw mm-hmm. de la même façon Ousmane ko dafa am ñu ko bëgg am ñu yaakaar ci il faut ñooñu accompagner ko xoolal appel bi ngeen di wax toujours dama leen di wax mais dans la constitution du Sénégal on parle de la résistance à l'oppression et c'est un droit constitutionnel supérieur aux lois pénales pourquoi du ngeen ko wax. où est l'oppression dans la diffamation. kooku c'est pas à moi de l'apprécier man li ma la mën a wax mooy il y a un droit qui est ici et tout Sénégalais am na droit exercer.